man kay nee naa la dama am suivi mais maître léegi nag nañ la donc yow pare nga ci. non man je suis déçu. waaw mais doo def benn voie de recours. recours pour doo def dara yow pare les règles du hmm. mooy mooy boo amee doublon ñu éliminé la. te xamoo ma sax ndax am na man xaw ma sax fu jëlee doublon hmm. que xoolal Boubacar Kamara mooy numéro un man mooy numéro sept. ki diggante bi ñu ne ma am nga huit mille cinq cent doublon. Mm-hmm. kon kon kon booy Camara maa ngi naroon nañu huit mille cinq cent ñu ne ma non identifié sur le fichier électoral ñu ñu tëbbal ma ci six mille et quelques te ñooñu am nañ carte d'électeur man xaw ma pourquoi ñu teq ma quatorze mille premier tour bi te la une réserve de onze mille cent parce que au lieu de 44 000 j'avais déposé 55 570 kon yeewu ma ci 44 000 de yi ma laajoon dama dem ba cinq 000 juróom fukki junne ak juróomi junne ak juróom-ñaar fukk 55 fukki junne nit la dugal. juróom fukki junne waaw waaw mais dama bëgg xam ndax yow. waaye bu dee xam juróom fukki junne. Euh, doo def benn voie man maa amul kenn mu wuti juróom fukki junne di dugal ko. waaw d'accord mais doo def <laughs> benn recours euh, pare nga ci. parce que dama. dama vous ne ferez que constater les dégâts. dama rus am gàcce. ah ndax bu ñu laaj réew. ñu dina éliminer ci ni yow ki la pare na pare na diw xamul parrainage la yow rek mais am naa ko ah am nga treize députés man am naa am naa quarante quatre mille. waaw mais mataloo tamit. am matal naa ba ëppale <laughs> ah soixante quatre mille laa la woon. <laughs> premier tour bi cinquante cinq ma ne kay da am ay doublons huit mille cinq cent doublons ak six mille et quelques. non identifiés sur le fichier ñu boole ko ba 14 000. waaw on n'a pas rempli les critères. déggoo moo tax ñu recalé la. ban critère critère mooy bu amee doublon dégg nga lu moo tax war ah, nii ci ci baaxul dama man d' naa ni on m'a éliminé selon des mais j'ai dû. mais mais mais pour man jàll naa bu joxe naa ko. waaw mais mais mais mais dama nga tontu ma. dafoo recours rejoindre benn collectif. pare nga ci. xam nga en droit man mënu ma nekk juriste topp ay non juriste yu topp seen sentiment yow yaa wax les règles du jeu vous avez raison les règles ont été mauvaises waruñu ko woon nangu doublon moo boobu sax waruñu ko woon nangu ki def doublon lañu war a condamné nga xamoo ci dara. yow ki ki la pare na pare na keneen yow loo ci mën a xam doo doo doo jinne pour xam ko léegi kooku tere laa dem élection ndax fay nañ ko xaalis mu trahir na dem dem pare pare na keneen population yoo xam ne ñuy bëri xaalis di gëm c'est la la l'argent qui xam nga Sénégal yi baal ma ñu ci bëri am na nag ñu ñu gëm am seen ngor am jom mais ñu ci bëri nañu gëm xaalis la jeu argent donc ñi nga xam ne ñi nga xam ne loolu te amuñu mbooloo. amuñu nit comme El Hadj Diouf amuñu structure comme El Hadj Diouf mënuñ dem fee Kaffrine taj ko dem Nioro dem Tambacounda dem Kolda xam nañu def toog di yónnee ay 10 millions yoo def seen émissaire wala di yónnee war yi daw xam nga xam nga VF la xaw ma bu ne nañu envoyé yooyu yooyu yooyu nga nga am rek parrainage yu bëri yoo xam ne keneen amoon na ko moom mu nekkoon sur le terrain après ñu ne jàll nga ñu lay félicité yow est-ce waruloo sax ruus doo am loolu gàcce la. waa léegi gàcce la.